te may yëgal askan bi lu ma waxoon ci campagne bi bañ may installé tamit ma joxoon ko tamit dugalaat fii mooy dama waxoon dinaa sàkku audience ci président de la république audience bi nag dugal naa ko mu ngi nii ba pare nag leeral wax ci Barthélémy Dias soxla ñu gis Macky Sall loolu wax dëgg yàlla amul amul amul askan Dakar benn intérêt wante maire de Dakar dama dem damaa fas yéene dem seetu président de la république pour ñu mën a waxtaan waxtaan Dakar ak waxtaan waxtaanu ëllëgu Dakar di am yaakaar nag que président de la république dina nangu audience bi am tamit yaakaar que président de la république dina nangu tamit régler yenn problème bu ngeen xam ne mairie Dakar am na ko te mu nekk ay problème ñu xam ne yëpp politique moo tax problème yooyu mairie Dakar di ko di ko dugg donc nag mbokk yi laa doon wax <coughs> audience bi mu nekk ma bëggoon wax ji leer laata ñu dem ci audience boobu dinañ xam tamit benn communiqué bi ñuy baaxee askan wi parce que. wax nañu sax mën na ñàkk wante naa ko baaxee rek comme ñoom nee nañu ñu daal seen xel nee nañu dañuy daal di recruter ay maire avec ay transhumants waaw ñun loolu ñu yóbbu ñu pale ñun lu ñu yóbbu pale mooy jéem a xool lii di la ville de Dakar naka la mën a liggéey ak état bi naka la mën a collaborer ak état bi. ci loolu tamit maa ngi ñaax président de la république que lépp lu ñuy jéem a waxtaane suñu biir wala lépp ñuy jéem a dijju nañ ko teg ci yoon te mu bañ a nekk par parlo Dakar dix-neuf communes la président de la république suñ jugee ba ko mais am na yéene bu tabax Dakar wax dëgg yàlla am damay sant yàlla ci loolu wax dëgg président de la république su bëggee tabax Dakar priorité bi nekkul plateau kii la ñu jógee dama ne am na fi ay commune seen salaire sax mënuñu ko fay balaa ngay dugg plateau te ngi nuyu di suma mag suma doomu day da ngay balaa ngay dugg Médina maa ngi yow passage nuyu le maire la Médina na nga dugg Cambérène na nga dugg Grand Yoff na nga dugg Parcelles Assainies pour nga Dakar waxal ñu war a wax ci parce que dañoo mun ku bëgg a tabax Dakar da ànd ak dal da ànd ak yéene da ngay ànd tamit ak coppeel ci askanu Dakar ak ci Dakar mais nag ku bëgg a tabax Dakar ba ci def nag par parlo ak mbiru politique wax dëgg yàlla loolu man xalima ci te am naa yaakaar ne que président de la dina xam fu may waxee nekkoon na fi maire xam lan mooy maire yàlla dogaloon tamit mu nekkoon fi ministre de l'intérieur xam lu baax lan mooy Dakar nekkoon fi tamit premier xam na bu baax a baax a Dakar xam na difficulté Dakar xam na urgence Dakar donc audience boobu ah j'espère que dinañ ci jot te am tamit yaakaar ci génnee incha Dakar dina gën a euh, am taxawaay euh, te Dakar tamit en tant que commune en tant que ville dina collaboration avec les démembrements de l'État dans l'intérêt général des